yoonu yàlla ak yàlla bi ñu ko liggéeyee. jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen. am kontante ak mbégte mbokk yi comme ni ñu leen koy defalee saa su ne di leen nuyuwaat bu baax a baax a baax fu waay nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb rek ñu ngi lay jaajëfalaat fa encore une fois foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di ñaan ci réew mi jàmm ak mboole mi jullit ak euh, képp koo xamante ne rek yaa ngi ñuy safoo ñu ngi lay ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen euh, tey nag dama dalal koo xamante ne xale la ci làmb ndax waxoon naa leen ko. nee naa leen wasaare làmb nekk fi ngir kii mbër mu mag la kii mu ngi fayee ko ay 20 million kii mu ngi fayee ko ay 30 millions man amal licence rek wala nga ni mbër nga rek incha allahu rabbi dinaa la jël ñu waxtaan ci lépp loo xamante ni njariñu làmb la ndax xale mooy doone mag mooy nuyu baax a baax a baax Adama euh, kii sëñ Moustapha Dramé borom yaa <laughs> Moustapha Dramé lee na safara la jëm tikat yi safara jëm cameraman bi Adama safara la jëm bi ñëpp safara la jëm ah yàlla yàlla dole sutura bu safaan rek ñu ñëpp ñu dem àjjana ndax yàlla suñu boroom li mu yor géej la te jeex tey ndimbal suñu borom moom du ànd ak coono du ànd ak maa tax yàlla nañu yàlla jàppale suturaal ñu ba ñun ñëpp ñu dem àjjanay firdawsi ndax yenent bi sallallahu taala wa dafa wax ci ci ci ci xaddis na ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale yéen a ma gën a xam euh, jàngkat yi macha allah ñuy ñuy ñuy ñaanalaat bu baax a baax réew. Euh, tey nag xale bi ma dalal faw ñu fas yéene waxtaan euh, waali la tudd waali bu yaraax xaw ma nag waali bi ma xam moom bu wayee mu neex bu feccee tojub réew kii nag waali mbër la xaw ma ba xam nduru naa ak moom ci ci ci dégg géeg yu mel na waali maa ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay. di la nuyu bu baax di rafetlu invitation bi di nuyu caméraman bi tamit di nuyu waa yaraax ji ma jóge waaw di nuyu axlu làmb yëpp waaw di wax asalaamaaleykum waaw ginnaaw ma sant yàlla julli Seydina Muhammad sant sama ñaari waajur di leen santaat bu baax di leen santaat bu baax a baax parce que man ñoom laa am di sant sama waa koñ waa yaraax yépp waaw di la sant yow bu baax a baax waaw. Waali lan moo waral Waali bi Waali. bu yaraax waale bi ñu xam musicien la nga jël sa bopp tuddee ko waale. waaw waale moom lu ko waral xam nga waale dafa nekk gannaaw bu baax quoi tamit ma bëggal ko som boobu trop te yàlla tax. waaw parce que mënoo mën naa ne yàgg naa kaa bëgg te tax na ma xeex doon nañ ma ci sama morom mbër xam nga daje nag moom entraînement mu dóor ma ci. waaw parce que waale daal yàgg nañ di ko bëgg ko yàgg nañ di ko dund tamit. xam nga mu doon grand bu baax tamit man ma bëgg ko sama bopp rek te yàlla tax loolu ma poussé ko sama bopp quoi. waaw mais du leneen. ci tuddee bi ñaata combat nga ci bëre ak ban moment nga tuddee sa bopp Wally. non moment bu ma tuddee sama bopp Wally mooy moment bu ma bëree sama premier combat arène. waaw boobu dama bëre yàlla dogal ma ñàkk mu nekkul sama premier combat mu métti ma trop mais ma dem defaru jiwaat léegi après par la suite nag ma toog waxtaan ak samay mbokk waxtaan ak samay mag parce que ñoom laa am ak samay waajur. léegi ñu proposé ma ne yow war nga mën a tuddee sa bopp Wally ak ni nga bëggee Wally nii waaw ma ne pourquoi man loolu waru mën a nekk léegi si laa tuddee sama bopp waali mais ba ma tuddee sama bopp Wally ba tey diiran boobu amaatuma fi combat quoi parce que ak Covid bi nii xam moo tax bëriwuñ boobu ba tey waaw. kon kii moom Wally bu bees la boo xamante ni daa fas yéene dugg ci làmb ni Wally def ci musique sénégalaise bi nga def ko ci làmb waaw comme sama turandoo nu mu nekkee roi ci mbalax bi rek man noonu laa bëgg a nekkee roi si kàttanu yàlla te gëm naa ne day am allah ñaata combat nga mës a bëre. non man am naa benn combat arène. Hmm. waaw benn combat arène la amagum. kon sa première sortie da nga ko ñàkk. waaw sama première sortie dama ko ñàkk parce que boobu xel xale moo nekkoon ci man quoi parce que dañoo teel a bëri arène. waaw dañoo dugg ci arène 2018 lañ bëri arène. Hmm. waaw dañoo dugg ñëpp ne booy bi lu muy ut si làmb ji ak tuutaayam xam noonu. Hmm. ñu gëm li ñu gëm di entraîner yàlla diñ dimbale ñuy dem si mbapat yi si àll bi di toj. di jël ay drapeau waaw ba nii nii instant Covid moo tax bëriwuñ boobu ba tey kan moo la daan arène. man BMW moo ma daan mu nekk defet bu ma métti tamit. mais BMW bu Bada John. waaw BMW Bada John moo ma daan defet bi métti na ma métti wu ma quoi parce que tax na ma doon mbër quoi tax na tamit ma xamaat samay entourage tax na ma xamaat ñu ma bëgg ak ñu ma bañ. waaw defet bi daf ma jàngal lu bëri. te gëm naa ne defet bi mooy doon sama sama mujjante defet incha allah gëm naa loolu waaw. dem nga ci Waly seeti ko waxtaan ak moom ci tur bi nga ko tuddee wala alentour Waly sekk ñu xam ni am na benn mbër boo xamante ne mu ngi ci làmb ji Waly la tudd. no def naa ay jéego quoi jéego yu ma def mooy doon naa def ay ay kii euh, ay vidéo di ko dugal ci YouTube bi di ko dugal ci TikTok bi. Instagram affaire yooyu noonu mais par la suite boobu ba tey ko mais après tamit def naa benn sortie si suñu làmb bakkan mm. mais booba ba tey tamit déggatu déggagul tur bi suñu borom bu ko tuddee rek incha allah lu yomb lay doon. waaw man moom bëggante naa bëgg naa gisante moom trop. sama mbëggeel fu mu toll si moom moom instant yii nii waaw gëm naa ne gis ko rek moo koy dindi ko ah waaw. Waly jéem a la jéem a la jéem a la déggoo xale bi euh, ndax tur nag vraiment euh, ku la ko tuddee ku la tuddee boppam dese la tu dara tax aadama damay wax ñaar yi dama naa nit ki la xamante ni dalaa jël yóbbu la kaso soit ñu ñu yóbbu la ba 100 parce que nit mun na laa yóbbu police te noonoowu la mais nit ki yóbbu kaso nga dem 100 kooku desee lootu la dara dara ci àdduna mais kilo la yóbbu màkkatal mu karam nga siyaare ji yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kooku desee lootu la dara ci àdduna waaye kilo tuddee boppam wala ñu mu tuddee la doom kooku tamit deselatu la dara ci àdduna mu doon loo xamante ni vraiment dinaa la jox numéro Youssou Dieng bu waal Waly Seck incha allahu rabbi père Youssou ku baax la nga déggoog moom ngeen gën a waxtaan euh, lan nga fan nga teg sa bët ci làmb waaw fu ma teg sama bët mooy tey fu samay samay mag egg si làmb mm-hmm. wala samay morom egg ko si làmb foofu laa bëgg a teg sama bët incha allah te gëm naa ne roi des arènes dinaa ko dugal yarax quoi si kàttanu yàlla mm-hmm. waaw loolu gëm naa mm-hmm. man ma la waxoon sàng rek fa sama turandoo egg tey ba doon roi di mbalax man fa laa a egg ba doon roi des arènes incha allah hmm. te day am ci kàttanu yàlla. Mbapat ñu nga ci bëreel gis nga ci kenn koo xamante ne mu ngi ci arène. waaw ñu ma bëree Mbapat euh, am na ñoo xam ne ñu ngi bëri arène am na ñoo xam ne waaw am na ñoo xam ne instant ñu ngi tukki nañ quoi. Hmm. waaw ku si mel ni tey ay ay anaconda kooku noonu man ak moom yàgg nañ jox suñu combat Mbapat mais day delloo avance. Hmm. te kooku waaw bëgg naa mbëkkante moom ci arène bi parce que tey moom bëri na arène am ay quelques combats mën na bëri arène am benn combat. Mm. te yàlla dogal ñu doon dox suñu combat mbapat xam yàlla dogalu ko mais instant yii bëgg naa yàlla dimbale ma mbëkkante moom ci arène bi incha allah. Mm-hmm. waaw. Euh, à part léegi amul benn promoteur bu la contacter waxtaan ak yow bëgg bëgg kii ak yow ban écrit nga nekk. no instant yii moom actuellement moom Covid bi moo tax quoi benn promoteur defagul démarche si écrit yaraax mm-hmm. waaw man école de Abdoulaye Diène laa nekk nekk suñu ginnaaw mag. muy Moussa Ndoye bu Yaraax ku ne xam na ko ci làmb waaw suñu kës si ay Aliou Sarr Père Ngoura Souleymane Diaw xam nga waaw ñu ngi daal ay loosoo affaire yooyu ñoo bokk même équipe même équipe yi mm-hmm. waaw te ñooñu yaakaar naa ku leen xamul si làmb bëriwul mm-hmm. parce que Moussa def na fi lu nekk si làmb mm-hmm. waaw si ginnaawam lañ nekk quoi. waaw ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax kontaan naa ci daje bi ak waxtaan beeg yu mel noonu. waaw man maa la gën a kontaan quoi parce que yow mi gis xale boo xam ne tekkiwul dara nga dalal ko sa émission loolu rek sant yàlla la quoi waaw di lancer appel tamit Wally Seck di ko lancer appel xam nga parce que man benn ndaw laa rek. buy dundu làmb bëggal ko sama bopp te yàlla rek tax moroom tur yëpp tuddee ko sama bopp bëgg naa tam mu jàppale ma quoi parce que man jàppale samay waajur moom ma ñor. Mm-hmm. xam nga samay waaju ñoo tax may rey sama bopp. nekk xale xam nga bàyyi lépp bàyyi liggéey yëpp dugg ci làmb pour dimbale samay waajur mais bëgg naa tamit waa li ma tuddee sama bopp mu jàppale ma daal te yàlla rek a tax ma mën a dimbale samay waajur waaw parce que kiroom mu ñëpp tuddee la boppam moom xam nga kooku am na bëgg-bëgg si yow te waali tax na ñu dóor ma dóor yu métti sama moroomu góor jàpp ma dóor ma dóor yu métti ndax waali waaw kon nag kooku kon xam nga kooku bëgg la quoi loolu bëgg la parce que bu doon ay lii nii bëgg falaa falaa kon mooy loolu duma jaral loolu noonu waaw di ko lancé appel rek mu jàppale ma mu a dimbale samay waajur ku si mel ne ay njago euro affaire yooyu noonu hmm. waaw ay ñaaxarañ loo maa ngi lancé appel ñëpp daal képp kuy faramaareen waaw maa lay lancé appel. mbaa du mbër faramaareen baa ngi nii. waaw faramaareen nu mu tojee si si way bi noonu la faramaareen bu ndaw bi tojee si làmb ji rek si kàttanu yàlla. waaw ñu moom ñu ngi si ginnaaw waal rek. fu mu teg tàngam rek incha ngi teg tàng fu ko raw ci kàttanu yàlla sunu borom. waaw. yàlla na nga moom Covid bi <laughs> Covid bi tojatul ah, dara tojatul temps yi ku nee dem àjjana wala dem safara boo fi xew te temps yi moom xam nga ah, sëñ Moustapha Dramé mu ngi lay dégg wóorul. waaw waaw waaw di ñaan yàlla tamit Covid bi xam nga sunu borom moo fi dugal yàlla jëlee ko fi di lancer appel tamit gouvernement bi nañ jàppale xale yi quoi parce que xale yi sonn nañ xale yaa ngi dem ci géej gi ñun suñu côté suñu milieu bële yaraax bi xale yaa ngi dem ci géej gi ñiy desen si géej gi ñiy egg nañ xam nga nañ jàppale xale yi quoi ñu liggéey parce que xale mooy mooy doon mag quoi. te tey ñoom la yàlla teg ñu nekk ci kaw mais bu ñu jàpp ne ñoom xam nga lépp ñoom la. nit yàlla mooy fale quoi nguur yàllaa koy joxe nañ jàppale xale yi seen ginnaaw parce que ëllëg ñoom dañ fi jógee xale yi ñëw kon nañ rafetal affaire bi quoi di nuyu di nuyu di tamit sama benn xarit sama doomu ndey muy galas di nuyu sama rakk Gale Thierno sama mag mu ndaw sama yaay ak sama papa man ñoom laa am. suñu waa kër yëpp maa ni siyaaru baax di ñaanal sama papa sama yaay gudd fan di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp incha allah may leen wér ak gudd fan bàyyi leen sunu kanam incha allah Mhm. ma lay jaajëfal bu baax a baax. waa per yow moom amul lu ma lay wax dama lay bàyyi yàlla sunu borom rek yàgg sa man yàlla moo xam lu gën si yow yàlla na ko yàlla def yàlla may la wér a gudd fan xam lépp lu nga bëgg sunu borom moo xam yàlla defal la ko mu doon lu gën si yow incha allah. waaw jërëjëf mbokk yi euh, Wally Seck bu yaraax la dalaloon tey ngir fas yéene waxtaan ak moom rek la ma leen waxoon saa su moom laay fas yéene waxaat leen ko mooy wolof daf ne mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk. tey boo xoolee Balla gay 2 fi mu commencé ci làmb ak fi mu toll xool Modou Lo fi mu commencé ci làmb ak fi mu toll nga xam ne xale yi tamit foofu la ñu toll ci làmb te incha allah rabbi ñaanal nañ leen lépp loo xamante ne mbër da koy am ci làmb rek ñu am ci lu kawe seen jot parce que koo ci wax rek mun la teral sumay ñaari waajur moo ma tax a jóg mbokk yi bàyyi jili la woon di leen jaajëfal bu baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërëjëf mbër